asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax eh, di leen ziare yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di seetaan Waarwi TV nekk waaru Xaadim Rasul Waarwi TV dikkaat yéen ci yeneen émission yu am solo yoo xam ne day am fii ci kër gi émission ndaw yi dana fi am incha allah dina leen émission wér-gi-yaram émission jàng du yàgg dara danañ ci dikk ak yéen di leen xamal tamit ne Waarwi TV seen yitte mooy li ko tax a jóg ndax saa suñ xëyee ci li leen di neex ci leen di dox képp koo xam ne am nga loo bëgg a siiwal numéro commercial bi mu ngi noonu ci ngay jaar boo ci jaaree incha allah waalo dana ko siiwal te it da nga ci gis ay njëriñ ndax ak Waarwi TV dara waratu leen ump dara waratu leen të ci Sénégal rawatina dëkku Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi may sàkku tamit yéen ñëpp ngeen wéy di abonné ci Waarwi TV ndax Waarwi TV dara dootu leen ump.